ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين nu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala bi mu ñu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci suñu dars bi di wax ci buntu bu am solo boo xam ni buntu bu ñu soxla la soxla woo la muy silsila boo xam ne ñu ngi koy def ci alxayaatu zawjiya assaida silsilatu alxayaati zawjiya assaida buntu bu am solo bii nga xam ne dafay tënku ci naka lañ mën a def ba tabax ak kër wala dund aw dundin woo xam ne ci biir néegu sëy lay doon waaye dafay mucc ayib dafay baax dafay tege ci ni ko sunu borom bëggee waaye ak ni ñu ko bëggee aji gëm yàlla ji day gis boppam ci boobu sëy parce que day yëg ni am na ci fierté am ci bànneex waaye am na ci ngërëmal sunu boroom am na ci it bëgg-bëgg yim doon yóotu ba tax muy tàbbi ci sëy sëy dëgg la ak jaamu yàlla waaye jaamu yàlla gu ànd ak bànneex nit kaa ngi cay mën a bànneexoo su fekkee fexe na ba defee ko ni ko lislaam bëggee ginnaaw bu takk amee walima am ginnaaw bu ñu leeralee yooyu kon tey ñu ngi war a def li ñuy tuddee xaw ma waral waral ak yàpp waral ak yàpp ñaari baat yooyu mën ngeen leen a teqale waral ak ak ku yàpp waral ak yàpp waaw mën nga ko mën ngeen a teqale baat yooyu lan mooy waral am yéen waa université déggu leen wolof yóbbu musa yi mooy waral yóbbu musa yi kay mooy yóbbu musa yi xamu leen luy waral kon yéen bu ngeen waree sëy buñ dañ leen di jël rek dugal leen ci maalo oto rek yóbbu kon waral mooy daje boobu nga xamee nit ñi dañ koy daje ca guddi ga waajal ndaw si ci ay xeeti waajal nga xam ni mooy yóbbaale ndénkaan yaag dajale bool yaag wut oto bu ko yóbbag togg reer yaag lépp lu ñuy def ci guddi googa pour préparer ko ndaw si musa yi loola waral lay tudd ci wolof bu fekkee déggu leen wolof bokk yépp nag ah yéen de yéen yi jàng français kon dégg xamu leen dara dara dara dara dara dëkk Dakar xamu leen yépp yépp mooy ndénkaan yi maanaam jigéen ji war a sëy ñu yàpp ko xam nga woto buy dem ci barab war a yóbbu ay bagage dañ koy yàpp ba mu fees dell pour mu yóbbu la mu war a yóbbu suñu waxee yàpp mooy ay ndénkaan mbokk yi ñu xam ni foofu aada ak lislaam dañ cee duggalante te lislaam xam ngeen ñëwul pour luñ ñu aadal rek mu ni sànni leen baaxut waaye aada ak lislaam am na point yu ñu dëppoo foofu ci lislaam moom xam na lu ñuy tuddee yàpp wala ay ndénkaan rotee ci làmmeñu yonent bi ak saxaaba yi ak taabiun yi ak salafu saalix seeni góor ak seeni jigéen waaye bu ñëwee ci aada même chose nga fay fekk da ngay fekk ni ñoom it xamoon nañ loolu ñuy tuddee yàpp dëgg la jigéen ji jékki-jékki rek daggee fële fàqe fële ca làng ga rek ñu ne ko am nga jëkkër demal sëyi te moom xamul nu ñuy nekkee ak jëkkër xamul nu ñuy jëflantee ak jëkkër xamul nu ñuy yoree kër jàpp naa ni loolu erreur bu rëy rëy rëy la te yéen ñii di ma déglu ak keneen ku nar a dégg kàddu gi xam na ni bokk na ci jafe-jafe yi ñu am ci wàllu sëy mooy jigéen ñi dañ leen a préparé wut am na yoo xam ne pour man du fatu séet bi déedéet ndax xale boo xam ne mësul xam góor mësul dund dundinu sëy mbaa wujje mësuñu koo jox responsabilité moom daa newoon ci kër gi rek di doom wala muy ab surga ci kër gi ñu xëy xëy ni ko jëkkër a ngi néega ngoog sëya ngoog njëla ngoog jàpp naa ne loolu erreur bu rëy rëy rëy la mi ngi mel ni yéen ñii ko war a dem examen jàngoo préparé woo defoo dara jour bi jot dañu ñëw jox la saw fooy ñu la acca bismillah duggal biir classe nga def xam ngeen loolu du sotti loolu moom jàpp naa ne ku ca génn moom doo jàmbaar da nga am dimbalam yàlla rek ci sëy noonu la ci mel nag muskila yi ñuy jànkoonteel ci warul sëy bokk na ci li ko waral mooy dañuy jël jigéen ji rek daal di koy jañax dugal ci biir sëy te préparé wuñ ko ndax préparation bi day nekk ci waral gi rek wala yab yi déedéet jigéen ji dañ ko waroon di préparer avant ba mu tolloo ci gis règle niñ ko doon préparer bi mu tolloo ci mata julli niñ ko doon préparer bi mu tolloo ci mata muur niñ ko doon préparer kadhalika buñ gisee ne toll na ci néegu sëy yaayam da ko war di jege lu bari moo tax dañuy wax ne yar bi gën a wóor bu fekkee benn ngànt amut mooy yarab yaay wala ku taxaw taxawaay yaay li ko waral mooy dafa am fu mu mën di yegg ak yow foo xam ni keneen du fa yegg ak yow ñaareel bi mooy jigéeni sëykat dëgg ni muy dundeek borom këram ab yàpp la ñeel doomam dinaay faral di wax mbokk yi ci buntu labat léeg-léeg bala ngay ñeme ki ngay labat da nga war a ñeme yaayam ba noppi ndax yaay dafa am jeexintal bu rëy rëy rëy ci doom gis nga yaay ji nga xam ni sëykat dëgg dëgg dëgg la foo boo ko seetloo ba ci biir bu dee moo yar doomam te dogalub suñu borom ci jàdd ñëw jàdd nar a jàddal ñëwut da ngay gis ni doom ji day nekk sëykat li ko waral mooy loolu ci yàpp la bokk yàpp gi tax ñuy wax dëgg nag mooy ñu dem nag ba ndaw si nag léegi ñu waajal ko ba muur ko nag dara desut lu dul mu sëyi nag donte su ma nee ba muur ko sax xam naa ñenn ñi dañuy yaakaar ni kon muur googa daa war a mën a nekk maanaam loolu aada la rek muur googu waaye la ndaw sa waxoon man lu may dox di muuru ndax muuru woon naa ba pare waaye wax na dëgg kon muur googu moom mbiri aada rek la waaye ku muur woon muuru moom muuru woon na ba pare kon dafa jaadu ñu am ay ndénkaan yoo xam dañ koy yëpp ndaw si ndénkaan yii nag mbokk yi jàpp naa ni bépp jigéen joo xam ni préparé woon na boppam balaa bis bii ci yenn yëf yi ñu jox ko ndénkaan yii ak yu ni mel ak yeneen yu ñeneen xam ah bu demee fa mu jëm day wax dëgg yàlla du sonn ñaareel bi mooy bu njëkk dafa am lu doon am te léegi dafa amatut mooy bàjjen li ñuy tuddee bàjjen bàjjen mooy kan bàjjen mooy kooku nga xam ne dafa bokk ak sa baay nga xam ni su fekkoon góor la mooy nekk sa baay kon du baay bu ndaw waaye bàjjen la tudd bàjjen dana nekk mag moo xam ni jot naa dem ba sëy ba pare mos yëf yi xam lim saf jota am expérience jota am lum fekkee jota xam ci néegu sëy lu bari bu sëy jotaan dañ naan woo leen bàjjen bi li may wax nii aada la soo gisee ma di ko wax nag mooy li ma tàmbalee nee naa la dafa am bunt yoo xam ni aada ak lislaam dañ koo dëppoo foofu bàjjen moom la ñuy wooyu mu ñëw bu ñëwee wéet ak ndaw si famille bii day famille la boo xam ni kenn mësu cee fay da lay wax wax yu daw yaram yoo xam ni da ngay gis sax jigéen ji daraan jooy ci loolu ñun de suñ famille bi kenn mësu cee fay na la wóor ni yàlla tere boo ko defee yaa gàcce googu yaa ko jëkk a dugal ci askan wi te histoire dana ko nettali ñun de ku ci mës a am jëkkër sa jëkkër ab sang lay doon bu naqaree deret ba ñuul lekk ko kit da ngay muñ yow ba xonqale ko ci ru soo demee jàppal ni lum la mën a def ci lu metti muñ ko waxa waxa waxa waxa wax xëy na yi ci des yenn yi dinaa ko yeggale balaay dars buy jeex insha allah gis nga yooyu ndénkaan waxuma la danaan def jeexintal waaye danaan jooyloo sax séet bi jooy yu metti sax da nga daan gis séet bu daan sëy daawut jooy ngir ni mi ngi dem kese waaye da daan jooy ngir wax yin ko wax dafa dal ndax ba ndaw sa doon sëy yi dikk ba romb armeel yi daal di wàcc fas wi mu yéegoon jonkoon jàkkaarloog armeel yi di jooy ñu laaj ko looy jooy mu ne damaa xam ne bis bu ma génnatee kër gi may sëy fii laa jëm si loolu lay xalaat waaye xalaatuma génn di fay mbaa may tas man xam naa fii ci réew mi sëy bu amoon jafe-jafe ma di ca dox waaye maire ba dafa wax loo xam ne daf ma marqué trop maire bi dani dañoo wax ndaw sa ni ko ñun suñu famille kenn mësagu cee fay gis nga gàcce gi boo ko njëkkee di nga indi musiba ndaw si dem nañ ba ca këram dafa wekki buntu këram pour naqaral ko pour mu génn waaye buntu néeg bi mu kon na nekk ca néeg ba sans buntu ndax rek ndénkaan boobu ñu ko dénkoon moom moom parewul pour fay moom maanaam yooyu daf doon def jeexintal ci xol ba jigéen ji daana jéem lu mu mën ba lu mu mënut ngir am ndam ca sëyam boobu su ko defee waaleykum salaam looloo waral dégg ndigal yooyu daana waral jigéen ji jur wàlliyu wàlliyu bu leen yaakaar ni day jékki-jékki ni taxawaal ba mu neex ko rek mu xëy ëmb jur ko déedéet taxawaal ba mu neex la moom boo xëyee jur yaakaar naa wuyu ngay mën a jur waaye doo jur wàlliyu ñaareel bi mooy nit ki daf ci daan jur ab sang ab sang koo xam ni sang dëgg ngay doon nit ki da ca daan jur ñu mokkal alquran nit ki da ca daan jur ñu nekk ay amirul muminin nit ki da ca daan jur ñu nekk ay général yi guerre ci l'islam waaye nit ki da ca daan jur ay fóore ci borom yi xam-xam lu ko waral parce que ndénkaan yu am solo yu rëy yooyu nga xam ni dañ la koo dénk te biñ ko ko dénkee góorgóorlu na ci kon yaay moo ca gën a yay bàjjan topp ca ñeneen topp ca comme ni ma ko nar a faram fàccee su ko defee boo delloo arrière ca salafu saaleh da ngay gis ni ñoom daanañ dénk seen doom yi dénkaan yu am solo am na yu ma ca tànn am na yu ma tànn it fii ci réew mi comme ni ma la ko waxee aada day duggalante ak diine am na benn jigéen bu ñuy wax umamata bintil xaaris umaamata bintil xaaris moom doomam bu jigéen lañ doon waral xanaa léegi war ngeen xam waral bokk waaw doomam bu jigéen lan doon waral bi ñu demee ba toll ci yàpp ko moom ndaw si moo doon yàpp doomi boppam lii may nettali téere yu bare bare bari nettali nañ ko ndax ni mu amee soloog ni mu dalee borom toxfatul arus nettali na ko imam ibn al jawzi nettali na ko ci ahkaamu nisa imam yu bare bare ala kulli xaal nettali nañ ko téere fiq yi boo dem buy wax ci sëy day nettali lii may bëgg a wax lenn ci li may bëgg a wax lu ko waral mooy ndaw si dafa wax wax ju dal wax joo xam ni jàpp naa ni waxuma kan doon waxal waaye tey tey jii rek ku ko déglu rek bu dee baax yitteel na la di nga amub yóbbal bu soobee yàlla umamata bint al xaaris mu ni ay bunayya ndoom sama xam nga ndoom sama waxin la woo xam ne moo bàyyi sama ñoo bokk yam maanaam nit kiy wax ak baayam àgg ci suuf wàcce kàddoom te naan ko bàyyi sama maanaam loolu day daw yaram dafay daw yaram ndoom sama it noonu la mel ay bunayya ndoom sama inna alwasiyata law tu law kaanat tutraku li fadli adabin aw li taqaddumi xasabin la zawaytu dalika anka wala abaadtuhu mink ndoom sam su fekkonte ni yàpp dénk kuy sëy su fekkonte ni ndaw si ab yaram dina waral ñu ba ko kon man wóolu naa la sab yar kon tey duma la dénk allahu akbar xam ngeen ni kooku kon yaroon na doom ci ndoom sama su fekkonte ni yaru ba ñëpp dëkk bi yëpp seede ni diw day doomam ji ku yaru la su doon loolu day nekk sabab ci kenn du la dénk mu ni kon yow duma la dénk tey ndax wóolu naa la ndoom sama su fekkonte ni askan wu baax ngay bokk ba ñëpp wóolu leen nit kër diw ku fa am jabar am nga sëykat loolu sabab lay doon ci ñu bañ a dénk kon man duma la dénk ndax këri sëykat sa yaay sëykat la ak a am solo sa yaay nekk sëykat kon de dinaa la soril ndénkaan duma la ko wax waaye nag walakinaha tadkiratun lil gaafil wa maunatun lil aaqil waaye nag mënta ñàkk ma dénk la li tax mënta ñàkk ma dénk la mooy ndénkaan bi fàttali la ñeel ku sàggan ku sàgganoon am yooyu sàgganee tuuti fàttali bi dana tax nga daal di defarwaat waaye ndimbal lay doon ñeel ki am xel gis nga ki amoon xel ba farlu ba pare da nga koo dimbali bi nga ko dollee ndax am na wax yoo xam ne xam nga léeg-léeg nga wax nit dara mu fekk xam na ko xaw ma li may bëgg a wax comprendre ngeen ko la dit léeg-léeg nit di nga ko wax dara fekk li nga ko wax xam na ko waaye gis nga jëmmi wax ji nga ko ko wax rek def na lu rëy ci moom parce que rappel bi nga ko rappelé bi nga ko rappelé waat dafa waral mu gën a yëgaat responsabilité yi koy xaar kon mën ngaa ñëw dénk nit ki fekk li nga koy dénk sax moom xam na ko waaye nga ni c'est pas la problématique ahan kay jar na ko kay parce que wax gi nga ko wax da koy dolliwaat courage kon xoolal kii yar doomam wóolu ko bokk ci askan wu baax te teewul mu daal di koy dénk waaye ñun ñii nga xam ni moom daanaka yii boo demee amuñ ci dara te duñ nu dénk la musibata a'zama min hada moo tax ngay gis njaaxum yi xew di xew ay bunayata ndoom sama law anna almar law anna imra'atan istaghnat an zawjin li ghina abawayha wa shiddati hajatihima ilayha kunti aghna an-nasi an dhalik walakin an-nisaa lirrijali khuliqna wa lahunna khuliqa ar-rijal ndoom sama su fekkonte ni jigéen baayam day amum koom sa baay jekk këram rafet mu utal la néeg ci kër ga nga am lépp ci sa kër baay su doon loolu war naa mën a tax jigéen du sëy kon yow doo sëy yow allahu akbar kon moo lay wan ni kii kat fa mu doon génnee wax dëgg yàlla comme ni ko jigéen ñiy faral di waxee ah boo mënta yor rek nga bàyyi ma dem toogi sama kër baay sa kër baay du sa place amal fulla te nga wax waxi fulla kër baay du palaasu jigéen kër baay palaasu góor la loolu jigéen ju am fulla du ko wax yépp jigéen joo dégg mu di ko wax rek xamal ni amul fulla su fekkoonte ni sa baay ak sa yaay jekk defal la la war nga am néeg am kër ca kër ga am yépp néeg ca kër ga su doon loolu day tax jigéen du sëyi kon yow doo sëyi ndax yow lépp fekk na la sa kër baay jigéen ju tedd nga ndax ci askan wu tedd nga bokk waaye nag daa fekk ni jigéen ñi ba leen di yàlla bind daf leen a bind pour jox leen góor ñi góor ñi ba leen di yàlla bind daf leen a bind pour ñu jox leen jigéen ñi kon kenn mënta dem bàyyi morom ma lii moo tax ngay sëyi waaye bu dul woon ak loolu doo sëyi te xam ngeen lu mel ni léeg-léeg ngeen gis ko léeg-léeg gis koo xam ne macha allah wax dëgg yàlla ay waajuram am nañu koom am nañu moyen am nañ diine maanaam ndaw si daal dëgg dëgg dëgg bu fekkonte ne mbirum àddina dong dong la yëf yi kon du sëyi waaye nag bis boo toogee foofa ngir loolu nga bañ a sëyi keroog ngay xam ne yooyee safut dara bu dee amoo jëkkër ay bu na yet ndoom sama innaki qad faaraqti alxima alladi minhu xarajti wa xallaqta alushsha alladi fihi darajti ila wakrin lam taarifihi wa qarinin lam taalifihi fa asbaxa bi milkihi alayka malika fa kuni lahu amatan yakun laka abdan washika waxfadi lahu xisaalan ashara takun laka duxra ndoom sama ndoom sama tey da nga nar a génn ci barab bi nga xam ni moom rek nga mas a xam xamoo feneen yow yar naa la ba mosoo xam fenn yow doo doxi doo génn doo tukki mosoo dem fenn tey nga nar a génn ci barab bi nga xam ni mosoo xam feneen fu dut moom ndoom sama tey nga nar a tàggoog tàgg am tàgg gis ngeen picc yi seen néeg yooyu ñuy defar ci garab yi moo tudd tàgg kon ab néeg lañ koy tuddee rek yaa ngi nar a jóge ci tàgg mi nga xam ni fa lañ la juree fa lañ la toqantalee yaa ngi war a jëm ci barab boo xam ni xamoo ko war a jëm ci soppe boo xam ni miinantewu leen te moom fi mu nekk nii nib jaam di moomee sangam fi mu ne noonu la la nar a moomee ndoom sama kii ñu lay may tey miinoo ko yow sax xamoo góor kon ku bari kersa nga ndoom sama kër ga nga jëm ay wujjë ay wujji peccer goog ay goroog rakki jëkkër magi jëkkër maam rakki baay kër gu jaxasoo goo xam ne lu ne nga fa bu système ba fay daw bokkul ak système bii daw sa kër baay te changement de saa bu amee rek mën naa jural nit ki ak jaxasoo te yaa ngi nar a génn dem ci beneen vie boo xam ni bokkul ak ba nga doon dund ndoom sama mbaa yëg nga ni kiñ la nar a may tey moo nar a nekk sab sang sang bi sañ naa xëy wax surga bi demal tool mu ni koy dew ma tool tey de tey damay noppalu yenul leget gi yóbbul tool ba mu ni ko duma sa mbaam de kaay fóotal ma sama yére yi mu ne man taluma ko tey dama dama gëmmentu loolu sang bi ñi mën a ko wax surga bi ñi mën a togg sa tontu sang bi noonu déedéet lan mooy xew mooy sang bi day dégg surga bi day dégg ndigali sang bi respecté ko ba lum ko wax mu def ko gis nga surga ni muy fonkee ab sangam ndax bu weer dee moo koy fay ah jaam bi ni muy fonkee njaatigeem yow yëgal ni sa jëkkër noonu nga ko war a fonkee wallahi wax na dëgg fexeel nga nekk ab jaam gis nga boo nekkee ci moom jaam bu nangu moom dana nekk ci yow sang bu am soppe bu la bëgg te wallahi wax na dëgg xëy na yéen ay jigéen ñi ñun ñooy góor ñi waaye man mën naa taxaw taxawaayu waxal leen lenn ci góor ñi gis nga góor xanaa mu nekk góor goo xam ni moom daanaka am xëba nëqata la waaye bu ko nekkul góor boo ñëwee nangoo nekk ci ron keppaar dégg ndigalam mu gëdd la nga noppi mu arsale la nga noppi su wax na ree jëm kaw sax nga toog jéggalu ko gis nga même bu mbaamee woon sax bu yàggee day nite maanaam remarque bi ma def man waxuma sax nga di ko def góor am la nga bëgg waaye xam nga dafa am góor ñoo xamante nii ñoom daanaka moom la yàlla xam doy na waaye même góor ñi mel noonu sax man gis naa ñu changé te fekk jëflanteeg seen soxna moo leen changé parce que soxna si da koy yar dana ko dóor ba mu bëgg te du ko laal parce que jëf day yar nit mu ne ko na nga fexe ba ndoom sama fukki ndénkaan yii ma la bëgg a jox gis nga boo ko sàmmee moo gën boyetu or am koom-koom la moo gën boyetu or man de jàpp naa ni damaa xool discours ndaw si ma ni introduction bii mu def rek buñ fi yemoon ñun ñëpp ñu daal di jug dem ah xawma yéen de waaye man dama ne introduction bii ndaw si def rek buñ fi yemoon kenn ku nekk ñibbi pour man ah duma wax doy na de waaye joxe na lu mat sëkk parce que introduction bi boo ko tasaaree rek da nga am lu rëy rëy rëy mu ni ko ama al ula wa thaniya fa soxbatu bilqanaa walmucaasharatu bi xusni alsamci wa altaaca fa inna fi alqanaacati raaxatu raaxata alqalb wa fi xusni almucaasharati mardaata rabbi ndoom sama ngal la waay boo demee sëyi na nga ma sàmmal fukki ndénkaan yi bu ko sàgganee mukk mu ne ko bu jëkk bi mook ñaareel bi laay boolee ndoo fa soxbatu ànd bi nga nar a ànd ak moom bil qanaa na nga tereex laa yoo doylu na nga woddoo doylu gis nga bis boo doyloo nga xam ni yow xooloo beneen góor jàpp nga ni sa jëkkër rek mooy góor yi mooy góor léeg-léeg sax nga dégg jigéen ju mën a sëy nag ju koy café moo ah kon am na geneen góor gu ne ci àddina bi léeg-léeg jigéen sax dañ koy faral di café am na ñoo xam ne ay sëykat lañ dañuy faral ah kon góor àddina bi am na yeneen i góor a man damaa foog sama jëkkër doo ngay góor ci àddina bi loolu man dégg naa ay jigéen yu koy wax mu neex ma lool nag parce que damaa jàpp ni waxin woowu bu àndeek lu nit gëm ci café wu ko jël na ndénkaan bi fa soxbatu lahu booy ànd ak moom bil qanaa na nga doylu jëkkëri diw lim am ak otoom beeg këram géeg mbaseem beeg lalam baag yooye yépp yow sa yoon nekku ci jàppal ni benn góor moo am ci àddina bi muy sa jëkkër jàppal ni moo fi ëppale kon lim am loolu baax na sombi mboq ngay lekk sombi gerte ngay lekk mbaxal ngay lekk ah mburu ngay ndékkee mburu mu waw ngay ndékkee lu mën a doon maanaam loo fa fekk rek gëmal ni yàlla mi la nangul seetaan la moom sunu borom bàyyi la ba nga tàbbi ci te istixaara woon nga dugg ci gëmal ni yàlla du la bàyyeek lu bon fii la yàlla tàbbal foofu la loo fa fekk rek gëmal ni loolay dogalub sunu borom te loolu mbokk mbokk yi ngëm yàlla da ciy feeñ bi nga yegsee rek la nga doon foog ak loo foogul woon ak loo fa mën a fekk rek alhamdulilah looloo baax bu dee da ngaa ñëw fekk waa ji ndeke mbaarum ñax la am doy lool mbaarum ñax ma ndax am na ñu tàmbalee ci mbaari ñax waaye fan mujj buñ la ko waxee tey da nga naan déedéet kooku mën nañ cee nekk li ay misaal yu bari yoo xam ne gis nañ ko xam nañ ko kon fa soxbatu bil qanaa ngal la waay doy lool li mu am bul xool leneen yi keneen ndax yàlla tagg na jigéen yi waa ajana ya ci ne xuuru maqsuua qaasiratu tarf ñu gàtt ay bët lan ñoom soxlawuñ leneen i keneen seen jëkkër rek di déglu ay àndandoo ak di barib xool ak barib dem day waral doylu googu doo ko mën inna alqanaata kanzun laysa bil faani koom-koom mu dul jeex saa boo ubbee sa waxande fekk fa loo jël mooy doylu mu ni ko ak ban mu ni ko wal muasharatu bi xusni sam'i wa taa fexeel ba rafetal noo koy toppee ak noo koy déggee déggalee allahu akbar xoolal waxul déggal ko topp ko de rafetal ko ndax nit mën nga koo déggal topp ko te doo ko rafetal sa jëkkër mën na laa digal mbaa mu tere la nga def lam la digal nga bàyyi lam la tere ba pare doo ca am ngërëmam doo ca am ngërëmal yàlla ñaar yëpp ngay bool da ngay perte ñaar yoon sa jëkkër mën na laa digal nga def mu tere la nga bàyyi te doo ci am ngërëmam doo ci am ngërëmal yàlla xam nga lu ko waral defin waa tax parce que da nga ko rafetalut indil ma sama añ bi sum waay nga daal di indi añ bi su waay xaabar xaabari fërëx fërëx ak sa yére di ko di ko déjj ba loolu doo ci am tiyaaba doo ci am ngërëmam may ma ndox nga ñëw rambax rambax yi sum waay daal di koy jox ndox ba ndox nga xaw a këpp ci ay tànkam kooku doo ci am tiyaaba ci moom doo ci am tiyaaba ci yàlla parce que rafetaloo ni nga koy defee du doonatul ak jaamu yàlla kon da ngay rafetal ni nga koy defee maanaam da nga koy def avec plaisir ak bànneex gëm ni lii may def nii maanaam mbégte laa ci am nga xam ngeen ne yéen a gën a xam ne nit kuy def lu mu bég ak ku def lu mu bégut bokkuñu nga kontaan lool bi nga ko koy defal ànd ak fierté gëm ni lii ngay def nii ak jaamu yàlla la moom dala ciy gërëm ah sa borom gërëm la ci mu ne fa inna fi lqanaati raaxatul badan aw raaxatal badan gis nga doylu noppal sa bopp da caa nekk gis nga boo doyloo rek noppal sa bopp sens contraire bi mooy boo doyluwul rek sonal sa bopp wa fi xusni almuaashara mardaat rabb ngërëmal sunu boroom yaa ngi koy amee ci rafetal ni ngay jëflanteeg sa borom kër yàlla gërëm la ah sunu borom xam ne jigéen ji jigéen ju ragal yàlla jaamukatu yàlla la waaye sëykat la te wax naa leen ni képp ku mënta jaamu yàlla man pour man du sëykat pour alquran it du sëykat lu ko waral yàlla dañu fa saalixaatu jigéen ju baax jigéen sëykat dëgg xaanitaatun jaamukatu yàlla lay doon moo tax dikk dikk ay diw kay moom ni mu ne sëy diw kay moom nangam nangam te du muuru du julli du foo ko fekk ma ngay meeso ko xeesal loola xanaa loola waaw ci ci aada de mën na kaa nekk moom ci seen aada yéen ñoom waaye ci lislaam moom déet kon dénkaan bu njëkk bi fexeel nga doylu te it rafetal noo koy déggalee rafetal noo koy toppee lum la wax bu ci teg baat gis nga même bu la waxoon loo xam ne am nga ci xalaat sax waxuma bul joxe sa xalaat de da ngay bàyyi ba fekk ko fa mu nekk nga ñëw wàcc ba sukk ci kanamam ah ndijaay de li nga ma wax sànq boo ma mayee ndigal di am naa ci xalaat soo ma mayul ndigal nag ma bàyyi ko rek am na góor ñu am xel dañ naan ah joxeel sa xalaat joxeel sa xalaat nga ne ko ah ndijaay lii nga nar a def nii de yaakaar naa ni boo ko defee li nga bëgg di nga ko am waaye nag dina am lu nu yàq mu ne lan nga ne ko sa jarbaat bii ci kër gi kat nangam ak nangam ak nangam ndijaay mu ne ah wax nga dëgg de wax nga dëgg de gis nga benn yoon boobu sabab lay doon ci may la poñ bis bu action amatee nga ne ko ndijaay de amoon naa ci xalaat rek day sawar ci déglu la parce que bu dul woon ak yow daaw njaaxum am gis nga ni nga ko defee gis nga ni nga ko waxee gis nga ndam li nga ci am moo tax ma ni jigéen ñi dañ leen dul yàpp moo tax sëyuñu dara dara dara dara man daal dëgg dëgg fi mu ne affaire yi moom dafa maa metti lool te mënuma ci dara dara dara dara dara parce que léeg-léeg problème yi am dañ lay nettali action yi da ngay xam ni ñii dañ leen a yaru ñii dañ leen a préparé wut waaye jigéen bu ñu yar ak ku ñu préparé ah na muy def du bokk ak nii rafetal ni nga koy déggalee ni nga koy toppalee bu fekkente ni dafa mer taxaw ci ëtt bi ah yow nangam nangam toroxal la sa kanam wujj yi sa kanam wujj peccor go yi xam ngeen def na lu bon nag dafa am góor ñoo xam ne dañoo baadoo la torop torop torop torop torop ndax gor kenn du ko xas ci mën a moroomi goram kanami goram waaye léegi foofu yéen nu ngeen def bu dee yéen da nga fay nekk ah bu boo ma ko waxatee ma delloo la ko nag gënoo ma day gënoo ma bàyyi gis fekk loolu du wax ci wa illa nga daw songoog moom wa illa nga def leneen ba ko suma mbokk ma defee jabar ja wax ma ko dama ne ko da ngay bàyyi ba guddi ba ngeen tëdd bu ngeen tëddee ba suuf sedd nga ne ko pëkk pëkk nijaay jugal dama laa soxla mu jug toog bu jógee da nga naan ko nijaay day tey ci bëccëg def nga ma loo xam ni day kilifa nga te kilifa même bu tooñee sax kenn du ko wax dara ndax kilif téef waaye man de jàpp naa ne kàddu yii nga ma wax tey jii toroxaloo ma man kese même da ngay toroxalaale sa bopp ndax li ko waral mooy say mag ak say nangam ñi ngi ci kër gi te ñoom doo gis kenn ku def noonu jabaram yow nga def ma ko ñoom ñuy gis ngay toroxal sa jabar ci seen kanam te ñoom duñ ko def ci sa kanam loolu kon yow ci sa jëmmi bopp sax yaa ngi loraale sa bopp te yëgoo ko ñaareel bi mooy su doon danga maa wax ma topp ji ma mel ni jigéeni àddina yi ma fayu su boobaa mën naa indi jafe-jafe dinaa ci lor waaye dinga ci lor di ko ko benn bennal di ko ko jabax dafa jékki-jékkam yàgg rek mu ne ndeysaan jëkkër ji jooy ma ne ko nag bit ba duggul loolu doo nga doon wut nag loolu rek loolu rek nga doon wut nag kese te gis nga façon bi saa bu ko jigéen defee rek am ndam bu ko defee nga da ngay tànn baat yoo xam ne da nga koy ràbb nag da nga koy ràbb ba mu jekk nag nga xam ne yii moom préparé du doon lu jékki-jékki rek comme discours boo xam da ngay jékki-jékki rek ñëw daal di koy sax wax nii de da nga koy préparé nag gis nga boo ko defee ah boo sàggantul jàmm am de moo dalam sunu mbokk ma nga xamante ni daa xëy dóor jabar ji jabar ji jooy tombeek bàyyi bàyyi jabar ji ak yaay jabar ji di romb di ñëw di ñëw di leen seet si sone bi buntu kër gi sone mu xool muy goro bi rek mu daw dugg ci biir duus ba di sangu sangulu ndaw si moom it di ndaw sunu yar sunu dénk ndaw si dem ci lavabo bi defar ba mu jekk jekk jekkalaat maquillage lu mu gaaw gaaw daal di génn noppi jooy ya dalal gan ñi ci saal bi te kër ji moom ma nga ca wana ba rek moom xaw ma day sangu xamul lu muy def yàgg fa lool nag waaye bi nu demee ba mu yàgg ndeysaan mu ni ko waa ana sëñ bi mu ni ko sëñ bi day moom mi ngi mi ngi ci wana bi day day tuuroo tuuroo ndox rek mbaa yéen a ngi ci jàmm mu ne ko ah yiif man kay yéex ngeen maa dugal fii fii kay moom sama borom kër kay sang bi kay di ko tàgg dëkk jëkkër ji ne karaj daal di ubbi bunt bi daal di génn gis nga bi mu génnee ba parents yi dem dafa dawal otoom ni ko kañ dem marché ñu dem fi ñuy jaayee or mu ne ko waxal ban boîte or nga bëgg ma jëndal la gis nga da koo suturaal xam nga ne kooku sanguwul woon waaye da doon sangu sangulu rek maanaam gis nga yu mel noonu kon lekk-lekk ak ñor da koy tax nit ki mën koo am kon dénkaan bu njëkk baa ngoog ñaareel beeg ñetteel bi wala ñetteel beeg ñeenteel bi mu ni fal muahadatu li mawadia ayni li mawdia ayni wa tafaqudu li mawdia anfi fala taqaw aynaahu minka ala qabixin wala yasum minki illa atyaba riix ndoom sama mu ne ko ndey sama naam fexeel ba sa jëkkër sàmmal ko sa jëmm ji ba bëtam bu mu la xool fekk yaa ngi mel melokaan wu ko neexut xam nga jigéen taar dafa baax ci moom taar lu ma ci jublu mooy waajal boppam ah xam nga ni ku yendoo fóot ak ku yendu ca waañ wa ak ku taxani woon bay doog a ñëw doonte taxan amul ci àll bi nag fii amul fii ndakaaru maanaam ku yendoo lëggéey rappaayu yére yaag xeeñaayu saxaar ba ca waañ waag yooya la ñuy wax yooyaa tax ñuy wax fexeel di jekki-jekkal balaa sa borom kër a ñëw fexeel ba bëtam bu mu la xool lu dul bët ba dana kontaan ndax fekk na nga waajal sa bopp wa tafaqudu li mawadii an fi sàmmal bakkanam ba bu mu xeeñtu dendeeg yow ngay xeeñ ay waasintóor ak ay ay ay yëf-yëfaan yooyu nga xam ni mi ngi noonu gis nga yooyu yëpp nga bàyyi ci xel daa yegg si fekk la ca waañ wa nga génn ak sa taqaayi loxo wala nga génn ak sa saxaar si ni mu xeeñee ak sa lo jàpp pot bi di ko ko jox mu yëkkati muy xeeñ jën ak yu demee noonu jàpp naan loolu jigéen ju mën a sëy du ko def te loolu lu mat a bàyyi xel la gis nga fexeel di sàmm bëtam ak bakkanam bu mu la xool mukk fekk melokaan wi nga mel taaruwut bu mu la xeeñtu mukk lu dul dafa fekk nga am gët gu neex gis nga façon parfum bi nga ëndaale bi ngay sëy si góor du ko fàtte parfum bu góor di bëgg lay doon bu dee bu neex la xaw ma loolu ndax dégg ngeen comme déet maanaam góor gi parfum bi mu def ci bisab céet bu dee parfum bu neex la jigéen ji parfum bi mu def ci bisab céet bu dee bu neex la gis nga góor fu mu rombee parfum bu ca mbedd ma rek xelam dem ci bisab céet moo tax fexe ba xam ni lii la gën a bëgg ci lu ñuy xeeñtu nii la ko gën a bëggee ci nu ñuy préparé góor gi war ngaa fexe ba xam ban xeeti yére ci sa yére yi la gën a sawar gasal ko loolu day am am na koo xamante nii moom tusngalu la gën a bëgg kee fuddanu la gën a bëgg kee nangam la gën a bëgg kenn ku ne ci góor ñi am na lu mu gën a bëgg loolu nag war ngaa fexe lijjanti ba xam lan la nga di ko def kon daal ñetteel bi ak ñeenteel bi fexeel di sàmmonteeg ba kanam ak i bëtam bu mu tege ci yow fekk nga mel melokaan wu doy waar waaye bum la jege fekk ngay xeeñ lu naqari waaw kon su fekkente ni sëriñ bi wàcc na wala mu ne fi wala mu yendu fi suur boobu war ngaa xam ni ngay def nan la kañ lay wàcc ay 4 heures kon fexeel yow li ngay def balaa 4 heures jot na nga defaru ba jekk waajal lan moo tax ngay préparé wu jamono yi ciit kese bu seet passé bu wàccee fekk la ak sa yére yu ràbb ah ana diw ñu ni ma nga ca waaj mu ñëw ak yéreem yu taq yoo xamante ni sum waay ah déedéet yow kay njëkk koo sangu njëkk koo waaj njëkk koo préparé jekk-jekkal ban bis lay lu liggéey nga ne dimanche comme Ndakaaru la nekk nga seet yërëb dimanche nga wut yërëb dimanche yërëb boo xam ne wóor na la ni bii bëgg na ko dimanche moom bu liggéey wut rek moom boobu ngay sol parfum ko ba mu tooy xepp nag waaw toog ci peggam yooyu yëpp ay xeeti yëf yëfaan la yoo xam ni day roose cofeel te da koy yokk juróomeel bi ak juróom-benneel bi fa taahudu li waqti taami wa tafaqudu li xiini manaami fa inna xararata aljuuci malhaba wa tangiisa annawmi magdaba ndoom sama ngal la waay heure lekkam sàmm ko heure lekkam sàmm ko heure nelawam sàmm ko heure lekkam am na góor ñoo xam ne ñoom bu ñu yeewoo fajar la ñuy bëgg a ndékki ngalawaay bu mu tardé am na góor goo xam ne bëggul ndékki bu teel am na góor goo xam ni lii la gën a bëgg barki dem maa ngi koy wax suma benn mbokk ñuy waxtaan mu ne ma lu tax lu tax lu tax toggaloo mu ne ma gane si mu ne lu tax toggaloo ma laax ndékki ndax xam nga ne loolu laa gën a bëgg ma ne ko jigéeni Ndakaar sa waruñ ci togg laax sa waruñ ci togg cere parce que dañoo tayal laax ak cere daa mburu da koo gën a yomb mburu ak bër nga xam da ngay dem rek jënd indi ma ne ko jigéeni Ndakaar dañoo tayal moo tax moo tax defuma loolu waaye yow bi nga xamee ni sa borom kër laax la gën a bëgg kii lii la gën a bëgg kii naan maam li mu gën a bëgg yow ci loolu nga war a taxaw parce que ak jaamu yàlla la da nga fàtte loolu ak jaamu yàlla la te góor gu nekk nag am na lu mu gën a bëgg fexeel di sàmm heure nelawam am na jigéen ñoo xam ne jour yi seen borom kër liggéeyu ak jour bi mu wàcc subhanallah de- am na jigéen ñu mën a sëy de am na jigéen ñu mën a sëy nag waxuma sax ay 1900 mbir nangam 2000 nangam jii ñu nekk laa xam ne jigéen ñu mën a sëy am na jigéen yoo xam ni seen borom kër bu wàccee ni damaa sonn xale yëpp la ñuy buub tëj leen ci saal ba wut programme bu ñu leen defal pour buñ coow ci kër gi seen papa mën a nelaw am na jigéen joo xam ni fi mu ne loo nekk nekk kilifa boo ñëwee di seet borom këram fekk muy nelaw dina naxasaale ba du ko yee naxasaale gi mooy xaaral ma defal xaaral moom sax lee mujj xam naa moom da nangam nangam di naxasaalay wax rek di naxasaalay wax rek ba jël temps bi ngir rek bañ bañ a dagg ay nelawam te bu ñu rëcclee ba dagg ay nelawam dinañ ko jéggalu fii ba suba lii may wax nii lu am la li may wax nii dafa am maam nekkut ay ay mbir yu may faraatu ci jaww ji rek di leen ko nettali lu am laay nettali nii kon toogal foofu rek ngay taxawaal rek waaye ñi waaxu moom ñi ngi waaxu rek danañ yegg fañ jëm ñoom kon fexeel di sàmm heure lekkam fexeel di sàmm heure nelawam war a lekk lekkoo day fuural xol war a nelaw nelawoo day tax nit ki mer li la nga gis nit ki naqari deret fekk xiifa ko jàpp léegi gis mu naqari deret fekk gëmentoo ko jàpp seetlu lii may wax gis nga sëñ bi saa bu gëmentoo en général wax yu naqari lay wax parce que gëmentoo mel noonu saa bu xiifee mën na laa arsale sax te fekk moom yéenewuloon sax di la arsale moo tax wàllu lekkam gaaw ci wàllu lekkam gaaw ci waaw yaa ngi ci lool nag te jéem a mën a togg nag teg ci bañ a mel ni jigéenu ndakaaru nga xamante ni daanaka dañuy dem ba toll ci mata sëy ñu doog leen di jàngal nu ñuy toggee loolu moom ci erreur yi gën a rëy yi ñu war a rectifier ci la bokk fexe mën a togg mën a togg ci jaamu yàlla la bokk mën a togg baax na de baax na lool sax lool lool te ci jaamu yàlla gi la bokk nag am nay tegtal yu bare bare bare bare bare yu lay wan ni mën a togg lu baax la moo tax soo mbokk ma dara na am soxna mu ni bi ñu xëyee ñu ne ndaw si day jël njël mu ni ma ki may wax ni ab oustaz la macha allah mu ni ñu ne soxna si day jël njël mu ni ah tey de bu fi toggee togg gu neexut tey ma am problème mu ni damaa dem ca jàkk ji julli ci ñaari rakk ñaan yàlla mu neexal ceeb bi xam nga kooku mbir mi kawe na ci moom lool mu ni damaa dem julli ji ñaari rakk ñaan yàlla mu jàppale ko ci togg gi ba togg gi neex ndax këru famille la mu ne yàlla nangu na ñaan ga ndax ceeb ba moom macha allah jeex na la xam nga yu mel noonu dafa am solo parce que mbirum famille la juróomeel beeg juróom-benneel bi kon sàmmal waxtu lekkam ak waxtu naanam juróom-ñaareel bi juróom-ñetteel bi fal ixtiraasu bi maali wal iraau ala xasmi wa iyaali wa malaku al amri fi l maal xusnu tadbir wa fi l iyaal ah fi lmaali xusnu taqdir wa fi liyaal xusnu tadbir juróom-ñaareel beeg juróom-ñetteel mu ni ngal la waay ndoom sama alalam moom na nga ko gën a fonk ci sa alal respecteel alalam fonk ko ba mu jéggi dayoo ay doomam toppatoo leen ba mu yëg ni toppatoo na leen soo bëggee sàmm alalam fexeel di ko ko économie soo bëggee sàmm njabootam fexeel di leen setal di leen toppatoo ak am solo am na jigéen ñoo góor ñoo xam ne fi mu ne nii dénk seen soxna alal moo leen gënal ñu dénk ko seen bopp benn waaye ngi boo xam ne nee na moom dem na ba gis ni soxnaam ni muy sàmmee alalam moom mi ko moom sàmmeewu ko noonu allahu akbar gis nga seede yooyu mbokk yi man su ma ko déggee damay kontaan damay kontaan lu tax parce que li nga doon jàngale nit ñi jàpp ni lii mënul nekk ndekki affaire baa ngi nekk am na koo xam ne ne alalam mu dénk ko soxnaam moom la gën a wóolu mu téyeel ko boppam parce que nee na nay nayloo geeg sàmm geeg sakkanal geeg gi ciy soxnaam di def nee na bu dee moom du ko ci fekk parce que maa ko moom lay wax fexe sàmmal ko alalam bu baax a baax a baax ah xam nga salaire am wala xamoo ko waaye fexe di toppatoo alalam nangam ji nag ah loolu de moom jëru ko loolu da da lay da lay sonal te xam nga yow sa charge fi ne daa bari gis nga loolu boo koy def góor bu yàggee da lay yërëm dama laa bëgg a jëndal nangam nga ne ah loolu de am naa ci aajo sax waaye baal ma ci kanam tuuti rek parce que xam naa ni tabaskee ngi jub si nangam a ngi jub si te fi ne nii sa mbokk yi ku nekk mi ngi la yaakaar te fi ne bu amee kenn ku la woyo woyofal man la war a doon waaye bàyyi rek man baal ma muñ man gis nga loolu góor mën nga ko wax sax sentiment yi yëngal ko ba léegi li nga ko wax du ko def contraire moom li nga bëgg loolu la lay defal moom maanaam li mu war a def lay def parce que yëg bi nga yëg toppatoo bi nga koy toppatoo ak yéene bi nga ko yéene rek mooy waral léegi sax même bu mënut day jéem loolu laay faral di wax ni góor di nga sàkku ci moom dara fekk amu ko waaye waxin waaye tax mu lebi ko waxin waaye tax mu lebi ko waaye di nga sàkku ci moom fekk mën na ko waaye waxin waaye tax tus du la ko defal waaw parce que waxin waa amutub yar te dafa am góor ñoo xam ni te xam leen loolu nag góor ñi dañoo nekk ay qualité de gis nga bi ñu yegsee ci ni ñuy sëyee soobee yàlla dina leen leeral qualité yi góor yi gis nga am na góor goo xam ni boo bëggee jàmm ak moom yow daal deel nooyal ak naxtaan ak neexal rek toujours nga am ko gis nga bis booy harcelé mbaa nga forcé rek benn bu ndaw rek benn yoon boo ko brûlé feu ñàkk nga ko ba faaw dafa am góor ñoo xam noonu lañ mel. am na góor goo xam ne buy wax nga tontu ko moom fii ba déwén dootoo ko tollanteeti façon góor yooyu xam leen yow nga xam sa waay nag ban la ca moom da cay baax. kon fexe di sàmm alalam waaye fexe di sàmm njabootam xale yi suba teel nga yeewu teel leen a defar teel leen a préparé mu gis moom taxul koy def waaye da ngay jaamu yàlla bis bu mu liggéeyiwut xale yi doon yëre yi gën a rafet nga leen di solal ba fa mu taq fa muy yàq yooyu bu ko nangu ñu di ko def moytu di leen jooyloo yooyu yëpp ci seen kanamu papa ak yu bare bare nga di ko bàyyi xel am na jigéen ñoo xam ne bu ñu dëgg bëggee naqaral seen jëkkër xale yi la ñuy dóor parce que dañoo xam ni góor gi dañuy dem ba xam ni góor gi loolu nag dof buy sëy rek moo koy def nag parce que daf yow sa borom kër lii la gën a bañ muy ko jooyloo xale yi léegi moom su bëggee meraloo jëkkër ji rek su amee lu ko naqari pour mu fayantoo dem jooyloo xale yow yaa ngi yàqal sa bopp parce que li amoon ci xol bi ci cofeel mi ngi dañ moo tax yooyu nga di ci bàyyi xel kon sàmmal kër gi fexe muy set jigéen ju set a baax waaye sum waaye léeg-léeg nga gis ñoo xam ni tabaarakallahu masha allah daal wax dëgg yàlla da ngay dugg ca wanaw fekk ma nga takk ay numtrati da dàll ya nga fa indi suuf ma nga ñuul fii ndox ma fa war a nekk siwa ba amul ndox so subhanallah man daal dëgg dëgg dëgg daal xam naa ni daal war nañ di góorgóorluwaat baax a baax a baax a baax waajalaat soxna yi léeg-léeg nga dugg ca waañ wa fekk ndab yañ reeree woon biig ma nga tege fële ndab kaasi ndékki ye wen weñ yaa nga ca tege loolu jigéen ju salte rek moo koy def gis nga loolu day wàññi cofeelu góor gis nga dugg ci waañu fekk nga ménage ko ba muy lerax leraxi seen xeeti këfin yooyu num tërati kotol yooyu am na ci yu neex lool ngay jëfandikoo yooyu maanaam sàmmal ko bakkanam utal ko dàll yoo xam ne ci buntu wana nga koy tegal utal ko dàll yu semis boo xamante ni bu buy buy noppalu moom lay féexloo utal ko nangam préparel ko lépp waxuñu la da ngay am ay moyens doog a def loolu gis nga nit ki kër gam am muy mbaaram ñax sax war na kaa bana bale mu set parce que mbaaram ñax la nga bale ko mu set ndax mbaaram ñax ba amul karo yi ñuy menace dina am suuf suñuy bale kon nit ki ca lam am na jéem a organiser wu topp toog léeg-léeg nga gis ñu set nag macha allah ñoo xam ni moom ñoom sax yàllaa leen bindee moom dañoo bëgg set te loolu xam ngeen ni ci mbaax ci ngëm yàlla ca la bokk njaboot gi it kadaalika toppatoo leen nag lépp loo xamante ni moo jëm ci njaboot gi léeg-léeg gis koo xamante ni pot yi xale yi jëfandikoo foofu la koy bàyyi ci digg ëtt bi loolu wax dëgg yàlla jigéen ji suñu wisiwu dëgg dëgg dëgg moo koy def xolli laaj ba noppi sa loxo yaa ngi xeeñ xuñ xuñ xuñ nga daal di ñëw toog sa kanam borom kër wala nga lekk lu am laaj sa gémmiñ mi ngi xeeñ laaj noonu te noonu la ko góor mën a defee tamit nag yooyu yëpp ay yëf-yëfaan yu mat a bàyyi xel la maanaam sëñ bi daal doo ko jege mukk lenn luy odeur bu naqari wala yu yu demee noonu gis nga loolu yëgal ni fi ne mi ngi chargé xol bi ci ngëm ci bëggeel ama taasiatu wala ashira juróom-ñeenteel beeg fukkeel bi mu ne ko fala tufsina lahu sirra ngalawaay ndoom sama sa borom kër benn secret bu ko mës a siiwal lépp lu muy nëbb buñ la doon rey yow bu ko waxee wala taasina lahu amra bum la mës a digal nga bañ fa innaki in afshayta sirra gis nga benn bis boo mës a siiwal secret lam tamani gadra dootu la wóolooti abadan dootu la wóolooti wa in asayti amra soo moree mooyee ndigalam aw garti sadra da ngay jugloo ab xolam wattaqi maa dalika kulli ànd ak loolu lépp mooy ta ndikul alfaraxa ida kaana tarixan saa bu amee problème watul di cëpp-cëpp ci kanamam di wane ne yow da ngaa kontaan tristul comme moom mais solidarité ah wal iktiab ida kaana farixan bul deedeeloog tiris tiris lu ci bis bi mu kontaan su kontaanee kontaan le ko fa inna al ula min at-taqsir sa borom kër am ay problème ngay kontaan day wane ne yow moom ku gàttañ lu nga moom ku ñàkk yëg-yëg nga wa thaniya min at-takdir sa borom kër nekk ci bànneex ngay tiis tiis lu yaa ngi saboote yow wa ashaddu ma takunina lahu i'daman ashaddu ma yakunu laka ikrama yëgal ni keroog ba nga ko gën a teralee keroog bi nga ko gën a màggalee jox ko cëram keroog la la gën a teral wa ashaddu ma takunina lahu muwafaqatan atwalu ma takunina lahu ah ma yakunu laka murafaqa keroog ba nga ko gën a déggalee toppal ko keroog la gën a pare pour ànd ak yow mu ne ko waalami ya bunayya ndoom sama xamal ni annaki laa taqdirina ala dalik lii ma la dénk lépp boo ko bëggee jëfe doo ko man xatta tuthiri ridaahu ala ridaaki allahu akbar fii ak jëloo say bëgg-bëgg teg ci suuf jël ay bëgg-bëggam yanu maanaam ay bëgg-bëggam moo lay gënal say bëgg-bëgg nee na saa boo demee ba say bëgg-bëgg ay bëgg-bëggam gëñal la ko say bañ-bañ ka teg ci suuf di sàmm ay bañ-bañam nee na soo ko defee wallahu yadaau laka alxayra yàlla dana la defal yiw foo mën a nekk wa astawdiu llah dénk naa la yàlla astawdiakillah dénk naa la yàlla jugal dem damaa xool histoire ba mu yàgg ma doon jéem a xool kii moom kan mooy jëkkëram loolu laa doon jéem a xool doon di jotuma koo xam ci téere siyar yi dama bëggoon a xam kii kan mooy jëkkëram parce que ku xamoon jëkkëram ba xool nam dundee jàpp naa ne ndénkaan bii day jigéen ju mel nii ca tàmbali ba ba tey kuñ ko dénk boo yeggee war ngaa jur kéemaan te war ngaa sëy sa yëpp kéemaan sëy bu mel ni ba jabari Surayx ja defoon Surayx waaw sa sa sa seet ba moom nu mu def mu ne xanaa sant yàlla rek xam ngeen seet daa am seet tët tët tët am seet waaw seet tët tët tët wala fi dañ ni boo dajeeg nit ni ko ana sa seet ba mu ni yuu sama seet ba kay waaye boo dajeeg moom anasi mu ni seet të të të të xamal ne xaw naa alko maanaam seet mooy ki ñëw seey si gis ngeen lii bi may doog a yegg si damaa bëggoon a naan mënumaa naan parce que dafa seeyul seetlu ngeen ko bi may doog a ñëw parce que seeyul woon ñu dem yóbbu ko fee def cam ndox ba mu seey bi mu seeyee lañ ko mën a jëfandikoo gis nga boo seey seey boo seeyut kenn du la mën a jëfandikoo loo fa yàgg yàgg yàgg yàgg galaas doom ngay tudd waaye doo am njariñ kenn du la soxla waaye booy seey rek nit ñi soxla la kon bul seet si waaye da ngay sëy si seey si sëy si mooy ñëw ga seey si mooy jëf ka jëf jëf kon dénkaan yi ci gàttal donte mënoon naa gën a faram-fàccew parce que waxtu la ñuy ragal mu dab ñu waaye benn bu ci nekk jàpp naa ne ay ndénkaan la yu am solo jaafar ibni abi talib wala abdullah ibni jaafar ibni abi talib da doon dénk doomam muy sëyi mu ni ko iyaaki wal xiira wattandikul fiir fiir gu ëpp fa innaha miftaaxu talaaq ndax fiir gu ëpp mooy caabi fase fiir baax na waaye na yem na bañ a ëpp fiiraange gu ëpp nee na bis boo ko defee yëgal ni sa caabi fase yaa ko yore fiiraangi ko ëpp baaxul ci contrôler kii ku muy woo ku koy woo ay portable am ak kii lim lay woo bari naag déedéet góor góor bul bul ko sa njaxu góor soo bëggee jariñ ci moom bul ko sa njaxu kon moytul fiiraange bu bari waaye góor ñi tamit nag war nañoo góorgóorlu dafa am góor ñoo xam dañoo soof nag ndax yow yaa ngi doog a seetal ceet gi ruusagut sa nga naa ko man de diw moom xam naa boo moytu moom laa ñaareele loolu góor gu soof rek a koy def loolu kenn du ko def déedéet jigéen buy doog a sëy si moom li wolof yi naan way wuy këpp gaal kenn du ko waxtaanee ci pegg tefes xam ngeen gaal xam ngeen këpp way woo xam ni soo ko wayee day këpp gaal gi bul dem ba ca tefes gi nga di ko way da ngay dem ba ca àll ba fa gaal amul nga di ko fa wayee loolu mooy ndaw si ci jëmmi boobu mi ngi doog a sëy si ku ne xam ne ni wujj moom donte dina am nag donte dina am nag moom waaye nag neexut léegi nag kon ndaw si moom yooyu moom bul ko bul ko sax waxtaane donte nag bul mel ni waaju ëppal ja nga wax mu ni man du ma ñaaral yooyu moom bu dee yooyu tamit bu ko wax nag wóorul parce que booy wax waxal loo xam ndax loolu yegg seegul kon buntu boobu ñu may bàyyi ci xel mu ni ko wa iyyaka wa kasrata al atab bàyyil barib jàmbat fa innahu yurisul baxda day waral sa jëkkër bañ la barib jàmbat incha allah ci dars yii di ñëw dina am ay critères yoo xam ni góor yi dañ ko daan taamu ci jigéen sëykat dinaa ko tudd bokk na ci critères yu yees ya mooy bari jàmbat jàmbat rek moom daal koo xamante ni moom discours am yépp mooy yim manqué loolu moom baaxut wa alayka bil koxli del jëfandikoo tisngal fa innahu azyanu zina tisngal daa jàpp jigéen lool wa atyabu tibi alma wa atyabu tibi alma ne parfum même boo ko ñàkkee parfum bi kenn dul ñàkk mooy ndox mooy fexeel foo toll moom del xëpp del del set rek boo yégee ne sëñ baa ngi ñëw boo mënee sangu sangul boo mënee xëpp ndox def ko maan dal del taqoog ndox benn waay da doon dénk soxnaam pour mu góorgóorlu mu ni ko xudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiqi fi thawrati xiina agdibu wala tanqurini naqraki duffi marratan fa innaki la tadrina kayfa almugayabu wala tukthiri alshakwa fatadhhaba bilquwa ويأبك قلبي والقلوب تقلب فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب kaay ñëwal soxna si ñëwal mu ñëw mu ne ko kaay ñu préparé ñu programmé nu ñu war a dundee mu ne ko ci naka mu ne ko xudil afwa minni yow daal jàpp ni góor moom dafa bari coono dafa bari sorox sorox lim yenu dafa diis ay responsabilité am daa bari yow daal dee ma jéggal rek lu ñu wax rek neel daa fàtte lu ñu wax rek neel tayu ko lu ñu wax rek maam dee ma jàppal ay ngant gis nga loolu boo ko def tastadimi ma waddati nopp gi ma la nopp day yokk saa bu ma xëyee moom bu yema nga xam day yokk ndax nit daa bëgg ko ko jàppal ngant wala tantiqi fii sawrati xiina axdibu saa boo yegee ni mer naa bay révolté rek noppil yow bul wax même bu dee maa ngi wax même bu ma la harcelé bul wax yow noppil soo bëggee jàmm te waa ji moo ko doon wax soxnaam kat di yow moom noppil rek lu ma wax lu wax ji bari bari bari yow moom bul tontu parce que am na góor ñoo xam bëgguñ ku leen tontu wala tanqurini naqraki duffi marratan bul ma topp di ma kangetloo comme ni ñu tëggkat bi def tama tellu ju dal rek mu dóoraat beneen mu ni déedéet loolu moom bul ma ko def moom parce que boo ma ko defee fa innaki yow laa tadri na xamoo kayfal mugayabu fa ma demoon lan laa fa jëlee xam nga loolu day am gis nga léeg-léeg sëñ bi day ñëw sa waaye nga wax loo xam ni jërul xuloo mu xeex ca xam nga lu ko waral day fekk mer mi ma nga chargé woo ca biti moo tax gis nga jigéen ji gën a mën a sëy mooy jigéen ji yeewu gis nga jigéen ji man taamu naa ci xel lool am xel jigéen ju am xel góor gi day xëy jàpp ne tey la cinq kon tey dina fayeeku mu dem ba yegg far fayeekuwul gis nga bu ñu bisee loolu day am lu muy def ci xol bi gis nga waa ji wotom bi dañ ko waroon a verser ñu ñëw ni ko oto bi de tey daa def soog gis nga loolu dafa am lu muy def gis nga boo jàngatee kanam waa ji xam ne tey rek nekkul rek bul bari ay sorxo sorxo ma dem te ñëw ndax xamoo fa ma yendu lan laa fa jëlee mën naa wax ak patron patron harcelé ko mu ñëwaat yow boo ko harcelé sëñ bi day métti lool parce que ñaari harcèlement mu nis ki mënu koo boole ci benn bis gis nga wala tukthiri shakwa bul bari ay jàmbat fa tadhhaba bil quwa kon da nga yóbbu sama coono bi yépp vraiment dafa am jigéen ñoo xam ñu goree di lañ ñoom it nag ndax yow koo xam ni moo la takk moo joxe can moo la jox la nga doon sol moo lay indi sa ndékki mooma sa añ mooma sa reer mooma te teewul ba léegi yaa ngi jàmbat am na jigéen ñu muus nag ñu yeew ñoo xam ni ñoom ah wax dëgg yàlla de man xam naa ni sa yen yi diis na lool man kay fi mu nekk nii xam na dama ciy mënul dara waaye su ma ci mënoon dara dem maanaam gis nga olof yi dañuy léeb naan loolu de bu day nax sax neex loolu la maire yi faral di wax dafa am wax yoo xam boo ko waxee ñu ne bu day nax sax neex na ndax kàddu la yuy féexal xol su ko defee góor gi dana xam ne yow mi yërëm nga kon doo bari jàmbat kon sama xol daf lay bañ te xol day suppaliku mu ne fa inni raaytu alxubba fi alqalbi wal ada gis naa lor ak ay mettit ak ay bànneex saa buñ dajee ci xol lam yalbasi alxubba yadhabu gis nga mbëggeel ku am fayda la est-ce que xam ngeen ne mbëggeel du wujje mbëggeel du wujje mbëggeel du wujje mooy gis nga xol lu la sa jëkkër nopp nopp lu mu la bëgg-bëgg gis nga bis boo ko commencé lor rek yëgal ni mbëggeel a ngay ma ngay fay moom moom day day eddawu léegi dem yoonam gis nga sa borom kër lum la nopp nopp lum la bëgg-bëgg moytul di ko def li ko naqari gis nga jamono bi nga koy def yëgal ni mbëggeel mi ngi eddawu ci biir xol bi da ngay jékki-jékki rek ñu ne idda ji jeex na mu génn dem yoonam lam yalbasil xubba yazhabu cofeel du fi desati day dem tey sëy yu bare bare bare daanaka buum nga rek a fa des diw diway jëkkëram diw diway jabaram doom yi nii lañ sant bay diw lañ diw waaye daanaka la tax ñu naan sëy dëgg dëgg dëgg ruux ba amatu fa kaf amatul neexoo amatul waxtaan te loolu yëpp dafa war a am ambiance dafa war a am bu dagan nga xam ni tey jii kii da nga koy bégal mu di la bégal ngeen di waxtaan ngeen déggoo gis nga kër gi neex ngeen mel ni ay doomi bàjjen ah gis ngeen doomi bàjjen ni ñuy yamat yamantee ci suñu aada genre yu mel noonu dafa war a am ci kër gi gis nga yooyu yëpp day faral di am kon daal ci gàttal asma binti xaarijat al fara fazari daf doon dénk doomam ni ko doom sama yow de génn nga ci kër gi war a dem ci kër goo xamut génn ci lal bi war a dem ci lal boo xamut génn ci soppe yi war a dem ci soppe boo xamut lii laa lay dénk fa kuni lahu ardan mu ni boo demee neel tàlli ñareet ni suuf yakun laka samaan sa jëkkër nekk asamaan tiim la wa kuni lahu mihaadan nekkal ab lal ah ab ndës ci suuf yakun laka imaadan mu ñëw nekk ay poto tiim la wa kuni lahu amatan nekkal ab jaamam ah nekkal jaamam bu jigéen yakun laka abdan kon dana nangoo nekk sa jaam bu góor ah laa talxafi bihi fa yaqlaak nee na bul insister bëgg-bëgg boo ko amee bul insister dafa am jigéen ñu mën a insister ñoom bu ñu amee benn bëgg-bëgg moom fii ak sottiwul rek duñ am jàmm nee na bul def loolu boo ko defee dalay bañ bul ko sori ba mu ëpp kon dalay fàtte bul ko ñooxu ba mu ëpp mën naa am fekk dafa bëgg a noppalu sàmmonteel noyyeem xet gu naqari bu mu belloo ci yow fekk yaa ngi ko jege sàmmonteel la nga xamante ni mooy say kaddu bu mu dégg ci yow lu dul lu rafet kaddu koy wax na nga ko rafetal gis nga kaddu dañ koy wodd wax dañ koy wodd ba mu rafet nga doog koy génne boo bëggee jàmm waaye am na kaddu yoo xamante ni su mu waay kenn woddu ko daa rafle kaddu yu ñàkk teggin la mën na laa yàqal lu bari li ma bëgg a wax daal ci gàttal mooy gis nga ndénkaan yii mën nañ cee indi yu bari yu dut yii waaye bu ma jubi mooy fii ci aaday wolof léeg-léeg ñuy nite ay xikam comme xikma moom manees na koo jariñoo fu ne dañuy nettali ñu ni am na benn buur xam ngeen bu ñuy wax kocc kocc barma nga xam dañ koy waxalaay wax yu bari jëluma ko nag comme dalil wala nangam déedéet waaye nit moom lu baax moom foo ko fekk rek mën nga koo jariñoo benn xaritam dañu ko ngoon damay waral sama doom damaa bëgg nga ñëw fekkee waral gi kocc daal di ñëw ba jub si waral ga fekk am na ku ko jiitu di njëkk a wax mu ni ko boo demee nag na nga yëg ni sab nawle lañ lay yët mu daal di tourné dem ñibbi ñu ni ko yow démb lu tax ñëwoo ci suñu waral gi mu ne ñëw naa kay damaa ñëw ba jub leen dégg ngeen tas say ba ma tourné ñu ni ko nun tasee say mu ni nawle nawle mooy kan mooy koy nawloonteel sa morom da ngeen ko waroon wax sab sang ca ngay jëm waaye boo nee ko sa nawle la nawle mooy koy moromanteel comme tas ngeen sëy bi te demagul kay jëlal may egsi ma ñibbi déggal boobu xekk ma ba doom bu jigéen moom di sëyi mu ñëw nit ñëpp yaakaar ne xam nga comme yàlla may na ko xekk ma ñu yaakaar ni tey moom dana wax lu toll ni une heure et demie mu ñëw ba jub xale bi daal def nii sumi mbaxana mi teg ko ci kaw bopp doom bu jigéen bi daal di koy teggiwaat sol daal di jóg leen dem gis ngeen loolu ni mu simple jóg leen dem ñun waaw kii lu muy def nii mu ñu laaj leen ko moom lan laa def ñu ne doom ji lu sa baay wax te moom waxut ba léegi di muy def maa cax dani ma mbaxana ma ni naam mu ni lu ko bàyyi ci bopp mu ni woyof mu ni moo taxit fu waay jëm man koo sol te dana rafet boo demee boo woyofee rek bu soobee yàlla fu sa jëkkër jëm yóbbaale la talli ñareet yéen nag may dégg yéen waa Ndakaaru talli ñareet nooy nepp dégg ndigal gàtt tànk gàtt làmmiñ mën a jéggale mën a jàllale bari sutura te sàmm sa làmmiñ gis nga yii boo ci góorgóorloo bu soobee yàlla fa ngay sëy da nga fa am ndam kon daal ci gàttal lii ay ndénkaan la yoo xam ni wax dëgg yàlla jàpp na ni jigéen juy sëy yi ñu waajalee ko nii mu am compréhension bi ci fa mu jëm ah yàlla mën na koy defal tawfiq ñu ngi ñaan sunu borom mu defal nu ko defal leen ko wala ilmu inda allahi taala wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain
alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah kon ñuy sant oustaz ci waxtaan bu am solo mu def jazaahullah xayran kon ñu dem ci deuxième phase bi muy question yi léegi kii day laaj mu ne est-ce que ñi nga xamante ni ñoom ñooy gunge seet bi est-ce que am nañ droit di wëy ci yoon yi rawatina suñu nekkee ci oto
déedéet bu fekkee dañoo nekk ci oto man la ma gis mooy bañ a bàyyi waye parce que xam nga jigéen ñi may nañ leen ñu way bul fàtte ne dañuy toog ci kër doog a way te mbedd boo ca nekkee yëgal ni jigéen kàddoom dañuy bañ mu yëkkatiku lool te it comme ca mbedd la nekk am na yu ñu koy may ci kër duñ ko ko may ci mbedd kon nag bàyyi ba yegg doo ko def la ñuy def wala ñu defee ko ca kër ga loolu mooy la gën walis mbedd mi wallahu a'lam D'accord, ok. léegi kii mu ne est-ce que maanaam li ñuy baaxoo di gis maanaam su fekkante ni ndaw si dañ kaa maye ba ëllëg sa ñu gis ne moom maanaam vierge la woon feet yooyu ñuy def ak folklore yooyu est-ce que yooyu dagal nañu def waaw loolu moom dama jàpp ne bu fekkoon diine diine waxu ci sax maanaam xel mu sell la ak nit ku respecté boppam warut nangu yooyu maanaam yooyu moom laa shakka diine wax na ci xadis yi bari yonent yàlla saa sallam nee na bokk na ci ñi nga xam dañuy am rëbbam suñu borom mooy góor gi nga xam ne dafa ànd ak soxnaam wala jigéen ji ànd ak borom këram ñu xëy xam li xew loolu musiba la ju rëy rëy rëy mi ngi mel ni mbaam mu góor ak mbaam mu jigéen mu ànd ca biir marché ba noonu la ko misaalee beneen bi ci des mooy ci wàllu respect dafa am loo xam ne nit bu la ko xamalee dootu la respecté ti te loolu tamit wax dëgg yàlla rawatina ka cay gën a loru mooy ku jigéen ki beneen bi ci des mooy jigéen ji ci boppam fekk ko mu nekk ndaw tekkiwul ni daawut caaxaan fekk ko mu ñàkk ndaw tekkiwul ni da daan caaxaan loolu ñu bàyyi ci xel ndax ndaw mën naa dañ te fekk caaxaan du ko dindi du caaxaan a koy dindi loolu day faral di am moo tax yu mel noonu yu mat a bàyyi xel beneen bi ci des mooy yitte bi dëgg-dëgg warul nekk loolu beneen ba ca toppaat mooy jigéen ji mënoon naa caaxaan ba ñàkku ndawam fekk dafa xamul woon diine bi mu xamee diine mu tuub dellu ci yàlla yooyu wéreesu ko sax di waxtaanee yu mel noonu yu mat di bàyyi xel la ci gàttal daal loola moom góor gu am faayda jàpp naa ne du ko nangu bokk na ci ndénkaan yi ëpp solo yi nga xam ne dees na ko joxe comme aada la diine dëkk lañ nekk boo xam ni nit ñi moom képp ku ñu may soxna rek nit ñaa ngay séentu loola su boobaa jar na ku góor ki sax bu mënul déplacé wu dem ca beneen barab mu fexe ba nit ñi moom loola ñuy wut du duñ ko xam loolu mën naa nekk ndax bu seet amee ci bis bu njëkk ba ci ñaareel ba ci ñetteel ba nit ñi am na ñoo xam loolu rek la ñuy xaar di ko déglu même buñ ko siiwalut am na ñoo xam loolu la ñuy déglu yu mel noonu nag lu nit ki mën a fexe suturaal boppam suturaal borom këram mu bañ a génn musiba la ju rëy rëy rëy joo xamante ni daanaka seytaane bu góor ak seytaane bu jigéen rek ko mën a def wallahu a'lam Jazakallah xayr léegi kii day laaj mu ni est-ce que dañuy faral di dégg yenn saa yi ñu ne ki nga xamante ni dafa tas sëyam maanaam kooku moom doomam bu jigéen du mës a baax est-ce que loolu sax na wala saxul
ah déedéet loolu moom am dul du wax wax dëgg yàlla ndax nit mën na tas sëyam fekk am na raison ci tas ga di tas nag baaxut nag moom waaw ndax tas moom ci ci wolof baatu bu wolof même bu dul ab sëy sax mbir muñ tas moom tas moom dara baaxu ci moom daanaka lu baax ab matériel fi ne boo ko jëloon tas ko léegi tey mu daal di commencé yàqu tas moom daraa ci baaxut kon bañ koo def mooy li gën ndax dinaay wax jigéen ñi doom yu bokkul sant moom borom kër bu faatu doy na ma ci sëkk waaye nag léeg-léeg ngant mën naa am ba nit ki tas su boobaa loolu tekkiwul ni saxaaba yi dañ am ñu doon tas ñoo xam ne ñii dañu leen a fase ñee ñoo ñaan baat ngir ay raison yéñ am na nga fexe ba da nga am raison ndax boo ñaanee baat te fekk amoo ci benn raison moom yonent yàlla bi ne ajjana doo fa tàbbi loolu xadis la kon yu mel noonu ñu bàyyi ci xel kon daal su boobaa loolu tekkiwul jigéen ji daal bu juree fa mu war a juree yar fa mu war a yaree toppatoo yàlla mën na def doomam baax insha allah wallahu alam
barakallahu fi léegi kii mu ne maanaam jigéen bi bëgg a bégloo borom këram nan lay def te du waroog ak eh, maanaam jàngalinu islam
waaw loolu de am na buntam spécial boo xam ne ma nga yegsi ci naka la jigéen di sëyee nag léegi bu yegsee ci xaqu zawjati xaqu zawji ala zawja àq yi sa jëkkër am ci yow incha allah danañ ko gën a détaillé suñ te yeggee waaye daal ci gàttal nit ki mën naa bégal borom këram te bu leen fàtte nag lislaam li mu tere bariwul de gis nga jëkkër ak jabar li ci lislaam tere bariwul de maanaam nit ñee xam nga ay meesu yooyu du du du biir sëy loolu biti sëy la ci biir sëy laa wax ñoom ñaar ci biir sëy ci biir néeg l'islam tere bariwul de loolu nañ ci bàyyi xel ça veut dire que kon moo lay wan yu baree bari yoo xamante ni même tere woon nañ ko sax te ci biir néeg mën naa dagan am na col ko goo xamante ni tey boo génnoon sol ko ñun la xaraam na waaye boo newoon sa biir néeg nga sol ko sa borom kër dagan na am na loo xam ne boo ko defoon ci mbedd mi ñu ne xaraam na boo ko defoon ci biir kër gi ñu ne dagan na kon yu mel noonu incha allah danañ ko gën a détaillé waaye daal ci gàttal jigéen ji mën naa bañ a jéggaani dara am lu bégloo borom këram te du jéggi frontière l'islam incha allah
waaw fay kii mu ne est-ce que maanaam mën ngaa may dernière chance bi nga xam ni maanaam dalaa proposé woon mariage ba pare mu war dem takki keneen dem ba jëmi jamono bëgg a ñëwaat est-ce que kooku mën ngaa dem àndaat ak moom
bu fekkee wor de ni mu ko tuddee noonu la tudd moom man wóoluma mayaat dernière chance moom wóoluma avant dernière chance wóoluma dernière chance bu fekkee wor la parce que wor moom wor moom da dul melokaanu jullit léegi nag est-ce que li mu tuddee wor wor la wala déet loolu tamit nañuy bàyyi xel ci masaa'il yi lekk-lekk mbir mën nga ko tuddee wor fekk du wor de parce que dafa am ngànt bu xew wala am lu gaar wala gaar ci ay paaraam wala mu gaar ci yow ay détails yoo xam boo ko xooleen ba ca biir parce que wor dafa garaaw war dafa garaaw lool kon nag bañ koo tuddee war ba keroog ñuy xam ni war la su fekkee tuddul war moom laa shakka ni njuumte lay tudd ak njuumte ba lu mu doon wala mu nekk leneen bu fekkee am nga lu dal xel istixaara man ngeen a àndaan waaye nag bu fekkee war la tudd moom déedéet man wóoluwuma parce que képp ku xas fen benn yoon mbaa mu war benn yoon moom dee su waree su la la wóolooti wallahu a'lam Jazakallahu khairan. léegi kii mu ne est-ce que lu ñuy wax ne maanaam ku góor ki warta bett maanaam bett soxnam à chaque fois suy ñëw daa war a yëglu est-ce que loolu sax na waaw lu sax la rawatina ci tukki sax moo gën a tax ñuy wax xam nga kii wàcc moom xam nga ni heure tel lay wàcc wala nangam waaye nag bu fekkee ku tukki la moom ci hadis fi ci tukki la ñëw ci tukki la ñëw borom xam-xam yi yenn sas la mu ni góor gi bu mu bett borom soxnaam ci tukki maanaam jékki-jékki rek janeen ñëw day téléphoné wala mu yónnee wala mu nangam wane dinaa ñëw jour tel soxna si préparé xool lam ci teg illa bam ci teg mu ni ki boppam jaxasu woon mu mën a préparé boppam ki jekkul woon mu mën a jekkas ni ko kon bëgg nañ islam sax mi ngi lay sàmmal foofu gis nga islam ni mu amee yërmande ci jigéen ñi pour melokaan bu baax boobu amaa nag liggéey góor mën naa xam ni heure tàngam lay wàcc du sart nag pour mu ñëw këram mu jékki-jékki ni maa ngi ñëw loolaa gën nag waaye du sart mu jékki-jékki ni maa ngi ñëw góor sañ na koo def donte bañ koo def woote ni maa ngi ñëw moo gën ndax mën ngaa fekk sax waaye góor mën na koo def ci fekk ci buntu yar la tey mën nañ leen sa soxna day seetaan télé boo demee day seetaan télé di seetaan ay film ak nangam nangam nga liggéey ba 10 heures jot rek nga ni dareet foofu ci waxtu wa film bay am waaw loolu moom mën naa nekk moom ngir xam waaye bu dul loolu moom jarul nit ki di jéem a bett soxnaam wala yooyu parce que kenn ku ci nekk nag am nga loo bëgg ñu koy gis am na loo bëggul ñu koy gis te am na loo xam bëggoo ko ko gis te araamut loolu am na de yooyu tamit nañ ci bàyyi xel am na yoo xam bëggoo ko la ci fekk te fekk araamut wallahu a'lam
أنت حبيبتي أنت زوجتي